taxawal bi maam ci loo maa ngi nii. ah yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. naka baa ngi nii. naka kee. may doo ko. maam démb démb daa toj bi nga am. ba pare lépp ngeen. maam sañ seeti nga. sañ seeti naa. waaw couleur rose bi dama ko oyofal nii rek. mais man li ma jaaxal xanaa semaine bi moom rose moo rose moo. waaw rose moo xew na Viviane moo woote xale yooyu rose. Ah? te dañuy waaj a dugg si décembre moo tax ñu rose rek. mais tey ñu gis euh, Ndeye xew le mm. nga bàyyi sa yitte yëpp jóge Dakar ñëw ba cees ñëw wuyu si ko sa diggante ak Ndeye Ndiaye d'abord. waaw Ndeye Ndiaye nit ku baax la. nitu valeur la nit ku am personnalité la. man ak moom dañoo xamante mais TikTok moo tax ñu xamante ma ko daan suivre mu nekkoon ku ma neex après ñu dem man ak moom ba am réaction mu nekk loolu rafet a rafet a rafet ma kontaan ci bu baax a baax mu nekk nit ku baax ma xewlee man ku ne xam na ni Serigne Fallou laa bëgg. Mm-hmm. ku ne xam na ni Serigne Fallou laa yaakaar. ma ma xewle bisu Serigne Fallou mu daal di bàyyi lépp lu mu jàpp daal di ñëw daal di ñëw may fekk si bisu Serigne Fallou bi kon tey bu amee doom. doom ji gane si àdduna mu nekk lu neex a neex a neex damay ñëw ma bokk ak moom mbégte bi. Uh-huh. mais ñu gis euh, maam Ndiaye démb ah euh, ci Viviane bi maam dellusiwaat am 5 ans Cheikh Titi moom yor nunu sëm ñëw di def lu ko saf ci kaw seen bi saa yu xaaree maam rek bu ñëwee feneen lay fël. waaw damay won ni sénégalais man damaa complet nit boo nee nit boo nee artiste nga wala dara nga da ngay compale uh-huh. man foo ma woo dama lay wuyu uh-huh. su ma woowee ci ay jàng ma ñëw wuyu la ci ay jàng loo ma woo daal ma wuyu la ci bu dee sant uh-huh. lépp rek dama la ci wuyu waa gàmmu gi gis nañ ko tamit nga ñëw uh, fële ci Tiwaawoon kër Aziz Ndiaye gis nañ la nga fa def mu jàll nag mu jul polémique bu rëy Sénégal ku nekk di wax noo dunde lool dañuy sant yàlla rek julli ci yonent bi ci la ñuy xamee ne lu ñu laal a gën lu ñu laalul ndax fu ñu dem andi fa bruit mhm. lu ñu and lu ñu dem euh, andi fa ay wax mhm. ba tax na dañu sant yàlla rek julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur mhm. mais bi gàmmu gi jàllee coow li bari ku mel ni ay Aïssatou Diop Fall ak ñeneen ñu mel ni moom génn di wax bi nga ko déggee noo dunde lool mais xam nga sa maam bu daanul woon baas waaw boo gisee ku baas da ngay mer dégguma li nga wax de ma ne ku sa maam loo bëgg wax te Aziz Ndiaye baayam dafa baas maamam baas mm-hmm. mu juddu di baas keneen koo xam ne sa maam baasul sa xol du neex ah. mm-hmm. kon wax ji xol bu naqari nga ko jàppe xol bu naqari la parce que lu baax mm-hmm. gàmm ñëw nga sant yonent bi màggal ñëw nga sant Serigne Fall Serigne Touba Mbacke yow nga ne lu tax nit ñi di ko sant kon yow doo nit ku baax ndax ñooñu ku leen santul doo nit parce que ñun amuñu lu dul oh. baatu laa ilaaha illallaah mm-hmm. te ñun bu ñu ñëwee ci ci ci sunu gàmm mm-hmm. euh, muy guddi yonent bi mm-hmm. lu ci waay am boo ko ci defee dagana ñu ñëw ci bisu Serigne ci waay am boo ko defee dagan na kon yaakaar naa ni bis yu yooyu nit waru koo xool ba di ci critique doomu aadama naan da nga war a def lii wala da nga war a def nii moo tax ma ne ku bàyyam baasu rek mooy mer mu mel ni Mame Ndiaye day dund jalousie c'est parce que gis nañ saa yu mel nii jàllee rek ñu attaqué ko di dal ci kawam lan la lan mooy problème mu Mame Ndiaye ak ñenn waaye maa yëg nga ni man ku may attaqué da ngaa ñàkk jom. ndax lan man daw ma dara. daw ma daali démb daw ma daali tey daw ma daali maasaayaa. ku ma attaqué danga ngaa ñàkk jom waaye man. waaw ku ma attaqué da ngay dégg. ndax ah. daw ma dara ragalu ma. ci réew mi laa dëkk fii laa juddoo du ma fi kes ki sapaat du ma fi sekk c'est-à-dire dara wàccewu ma fi oto bi wàccewu ma fii laa dëkk fii laa juddoo. Mhm. ku ma wax lu ma tee añ doo reer. ndax moom tey tey moom xam naa ko ni añut. ndax ba maw xëyee wax démb. ma koo tontu vite fait. Mhm. mais moom dama ko may dara. yi nga ko tontu seetlu nga ko. bomb yi dal na de. dalagul comme neen dafa réew te ku wax mu yóbbu la police moom moo am droit wax te kenn du wax. waaw ku mu yóbbu waa yow eh. gi jeex na mais police nekkalu fi kenn ñëpp la fi nekkal. yow nga rew toog ci plateau di wax lu la saf. Mm. nga ne ku ma tontu ma yóbbu la police. Mm. ma ne ko baayam moomul police. Mm. moom réewul. Mm-hmm. ndax moom moom réewande yi mu yi mu réew réew yooyu daa xewi mm-hmm. ñu réewande yu njëkk yu njëkk yooyu dafa xew ñu réewande yu bees yi la ndax réewande yu bees yi dafa fekk volet am lépp am suus am suus am lépp am kon moom réewul nee naa ko moom réewul xam nga lu tax réewul tant que dayul ci plateau réewul te ñu eh. dañoo day fu ñuy toog laay laay la la ana fu ndànk rek ndànk gars yi def leen ndànk allo ma teel la ah da ngay record ndànk ndànk bala ngaa daan sa xoolal li ngay def bala ngaa gaañu fii rëm la de téye micro yi wala. waaw accompagne waaw accompagne mbokk yi di leen nuyu bu baax a baax a baax rek comme ni leen nuyee saa su ne tey ni ñu ko defee ñu ñëw fi nga xamante ni yaakaar naa ni moo di Ceeskaay ci bés bi nga xamante ni suñu jigéen suñu xarit mooy woote di tudd li nga xamante ni mooy doomam di Ndeye Ndiaye ñu fekk fi nag ah, ndaanaan suñu frère Baye Gaye ah ñu nuyu bu baax a baax. bongo maa ñëw nañ. waaw léegi ah, ñu ngi lay fay. ban problème nga am bongo ma. dara amoo ci benn problème. bàyyi yéen ci jàmm. alhamdulilah dañuy liggéey ñu ngi ñëw fii de ñu ngi naan bàyyi gis ngeen eh, eh. dañuy liggéey waaw nga ni. non damaa yorul lu ma maye sax man wax dëgg yàlla yéen site internet yi yéen a war ma xool kenn ku ci ne mu xool lu mu barkeeloo jox ma ko waaw mais ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm parce que yéen a ngi def liggéey bu rafet tamit waaw di leen ci ñaanal jàmm di ñaanal réussite parce que fu gars yi nekk rek yéen a ngi fa ba pare bari na ñoo xam ne tey ñu ngi siiw ah grâce day yéen parce que yéenay jël seen vidéo di ko dugalaat kon ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax yal na leen yàlla defal jàmm daal waaw. Ndeye Ndiaye waaw Ndeye Ndiaye nag dañoo yàgg parce que Ndeye Ndiaye mën naa sax mariage am maa ko baas takki gi takkam baas maa yanu séesi bi muy séesi maa yanu ndab yi lépp indi kon Ndeye Ndiaye dañoo yàgg alsan sama doom baay la sama xarit la sama waay sama patron la kon dañoo yàgg daal waaw Ndeye Ndiaye nag nit ku baax la ku baax ku oyof ku bëgg nit koo xam ne ñemee joxe lekk tamit waaw moom it ci këram tamit ah ñeme koo joxe lool ñe bëgg ay nit di dajale ci këram.